sëñ Fall euh, Modou xarañ loo jël na avance jamono yore ci ginnaaw suñ sorti mujj bi nee woon nga Modou Lo bu moytul dana daw xal ba faf lakkle jël na avance waaye li ñu jaaxal mooy Boy Niang moo nangoo gën a jël avance Modou Lo loolu la jaaxal ñu. waaw xam nga bu dee jëmmi combat boobu li ma ci waxoon te mooy li ma wax ne Modou Lo boo moo ngi daw xal far tàbbi ci sébbu. Mm-hmm. sébbu. ñi liggéey ci àll bi daañu ko xam du moromu xam li tax wax loolu mooy xam nga boo leen seetee ñoom ñaar ci wàllu xelmul hadat mm-hmm. borom xam-xam yi may déglu xam nañu ko eh, bu la neexee nga dellu ci kitaab abul mashar al falaki mm-hmm. eh, daa ko ci gis eh, bu la neex itam nga ci moo xam ni ko tuddee dalilul xeeraan mm-hmm. wala téere téere yi nga xam ne ci lañuy seetee it boo ko ci xoolee nga xool diggante alxaalib wal maxluub mm-hmm. nga def xaddat bi nga wàccee da ngay gis ne booy ñaa mm-hmm. dafa ko diminuer gis nga foofu ci wàllu xaddat buur dinaa fi def benn révélation gis nga maanaam bu fekkoon lu naturel la nii nga xam ne kenn dem seeti sëriñ duñ jox kenn tegtalu wàllu wàllu sarax mm-hmm. nga xam ne ku nekk day dem defi sport kese te yem ci bis ba jot ñu ñëw bëree léeg-léeg ñaari mbër daañ tëddee noo xam ne buñ doon bëree jinne yoon kii daane day daan léeg-léeg mbir mi mën naa albatiku selon sarax yi ñuy def dégg nga selon ñaan yi leen di defal yëf yi mën naa albatiku su ko benn dafa mel dañuy pilis kii moyen kii su boobaa su fekkee dañ na làmb ji maanaam ci sarax lay lay lay lay dox wala ci wàllu càngat lay dox yu mel noonu ci wàllu ñaan su boobaa da ngay gis ne ku ci ëpp doole ci ci wàllu woowu rek moom mooy mën a làmb ji booy ñaan nag sens bi mu am fii may wax ak yow dafa taxaw lool ci wàllu mystique comme li ma ko waxee. Mm-hmm. moo tax noonu naa. képp koo xam ne yaa ngi koy jël te waa jëloo sa bopp ci wàllu mystique. waaye moom nangoogul jël avance ba tey jël. waaw loolu it moom it xam nga dafa am lu muy seet moom du doon koo xam ne day jékki-jékki rek ndax xale la bu am lu mu bëgg. Hmm. am gëm am fu mu jëm. du jékki rek jël ko noonu da koy xool baatin xool ko ba mu wóor ko mu door koo jël. Hmm. bu ko waree jël rek dina ko jël donc waaye fi mu toll ni guddi yi daa nekk ci di ko seet. Euh. newoon nga ma booy ñang li ma gën a jaaxal buur mooy gàllaaj yi gaañ yor ak gim yor dafa mel ni ay sëriñi leer la euh. waaw loolu day del day dellu ci ku nekk sëriñ si lay ñaanal dafa ci am ci ñaankat yi ñoo xam ne dañuy jëfandikoo xam-xam bu ñuul moom la tuddee asulmaan yi. Hmm. am na ñoo xam ne dañuy jëfandikoo xam bu leer moom la ñuy tuddee annuraan yi xam-xam yépp euh, xëy na du ma wax ne bële baaxul waaye xëy na bu dee ci wàllu daara. moom du ñuy faral di jëfandikoo xam-xam bu ñuul. Hmm. bu dee booy ñaan ak ñu koy ñaanal dañuy basé wu ci xam-xam bu annuraani hmm. donc boobu nag euh, ku ne xam ne fa mu jógee lépp mën nga ne ci yàlla nga koy delloo ci alquran nga koy delloo. Hmm. donc moo tax te alquran du doole amul amul amul dara lu mu yemal ci wàllu doole ci wàllu kartan. te itam sam sampam mooy gën a yàgg ke leneen gis nga no euh, sulmaan yi jooni jooni da mën waaye mënul samp lu yàgg. yaa ngi jàpp li ñi koy ñaanal ci euh, sulmaan yi lañ koy ñaanal mbër boobu mën na taxaw waaye bu fekkee ne euh, taxaw bi mën na taxaw maanaam mën nañ ko samp ba mu dëgër mais samp bi mën na a mm-hmm. par contre bu ki nga xam ne dañ koy ñaanal ci wàllu nóoraan yi nag samp boobu mën na yàgg. kon donc maanaam par exemple na def prestation. par exemple bu fekkee ne ku doon roi de Sarène la fekk ñi ko ñi koy ñaanal ci nooraan yi lañ sukkandiku moom loolu mën naa yàgg ci loxoom. jërëjëf euh, mbokk internet yi ñoo ngi leen di nuyuwaat di leen ziar di leen ndokkeel di ñaan yàlla sunu borom sunu jataay bii di jataayu xam-xam yàlla leen fekk jàmm ak fu ngeen mën na ci àdduna bi dellusiwaat ak yéen jëmm ju tedd Serigne Fallou Dramé jàngalekat bi borom xam-xam bi fajkatu ajo bi nee naa bu ñu defee émission message yeeg lépp dañ koy gis. ci rafet lu xam-xam bu leer ak dëggu ak njub gi mu àndee ak jaam yàlla yi tey nañu seet si waat ko ci beneen numéro fas yéene waxtaanee xam-xam waaye te ñetti mbir yu doy waar laa indi ak Sëñ Fall Dramé waaye bu ci ne day daw ci ittee doomu aadama kese Sëñ Fall ñoo ngi lay nuyu di la ziar bàyyi la nga nuyoog soppe yi ak taalibe yi lay seetaan à travers le monde bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi wa kafa wa salaamun ala ibadihi lazina stafa wajxal kalaami rasidan wa mursida wa fikrati nawir wa xalbi arsida fa radiallahu taala anil habdil xadimi riddan yasmulul ala wa sawil mahabba asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu buur maa ngi lay nuyu di nuyu seen duur mi nga àndal waaye itam di nuyu Sénégal yëpp ak fu ñu di nekk di nuyu itam waa bitim réew waaye itam di ñaan yàlla rek mu saxal jàmm saxal itam dal ci biir réew mi waaye itam saxal ko ci bitim réew woy jaaxle yi ak lu mën di sabab seen jaaxle ñoo ngi ñaan yàlla mu teggil leen ko moo xam jaaxle wéradi la moo xam jaaxle eh, nekk ci kaso yi la moo xam jaaxle di ak di xëcc loo soxla moo xam jaaxle ragal di ko jañ la ak lu mën di doon yëpp jaaxle la fu fi jaaxle mën di nekkee rek ñoo ngi ñaan yàlla mu saafara seen jaaxle yooyu di wax bismillah sëñ bi tey moom mag duuru tey fii la yendu tey mm. añ ba suur naan café dem julli juma tey moom dañoo yendoondoo ak sëñ bi moom mm. <laughs> ndeysaan mu ci lu ama am solo di ko bu baax a baax ndax moom dañuy am mbégte lool de dëgg yàlla la ma doon wax rek mm. ba keroog suñu émission bi naa leen wallaahi wallaahi wallahi barke Serigne Mbacké Madina moom mi man naa ko garanti loolu moom seeranoon naa ko yàlla seeroon naa ko yeneen bi seeroon naa ko Cheikhul Khadim ndax ci dëggoom ak sellam ak nangoo liggéeyam ak mbaaxam képp ku bëgg a jëflanteeg moom bul ci sikki sàkk darajee Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké bokkul ak ni ngeen foog lu ci waay jëflanteeg moom te mu wax ak yow insha ko jëfee lépp lu ci waay jëflanteeg moom ci aaju ju mu mën a doon dana ci def kemt lay kattanam ba noppi rafet njort ku jub la ku yiw la ku baax la suñu wax yi ñuy seere nii danañ ko seerewaat ci biir suuf sëñ bi mu njëkkee ci lii mm-hmm. mm-hmm. kii ci nopp loom ndox man maa koy bëgg a miin mm-hmm. waaw waaw bii de ñu bari miin nañ ko ñu bari itam xam nañ ko ñu bari jàllale nañ ko jàllale nañ ko mooy ñu bari publicité nañ ko ndax jaarale fa seeni mbir ci wàllu nopp mu faju ñoom itam ñu gis ko am jaaxle gu mel noonu nu nu yebal ko ñun yu dul jeex moo xam ci biir réew mi la moo xam ci bitim réew mi mm. kon nopp moom na ma ko daan waxee loolu rek laa ciy répété mooy li ma ci xam ci ay yoon du lu ma teewlu ndax bariwaay mm. ci yoonu njàng moo xam xaatim la moo xam ci alxuraan la moo xam ci tegtal la mooy loo xam da nga koo naq la naqal goo xam ne fu wóor nga koy jëlee ndax itam toxal toxal dafa war a am baas bu dëgër mm-hmm. du doon rek loo xam la ngay jëlee ci mbedd yi danga koy jëlee ci kilifa goo xam ne gu wóor la nga xam ko ci ragal yàlla ak ci liggéey ci xam-xam mm-hmm. toxal yooyu itam ñiy gëstu xam-xam nañu ko bàyyi xel booy gëstu xam-xam doo def loo fob rek jël mm-hmm. donte itam am na fu ñu koy nangoo waaye am na ku koy man ndax bu fekkee ne imaam yi dafa wax ci maqaamatul Hariri wax ne soo dee gëstu xam-xam dangay mel ni ka xaatibil layli. Mm. noonu la ko tuddee baat bi. Mm. xaatibil layli mooy kuy taxan guddi kuy taxan guddi nag ci àll boo xam ne ngaañ bu lëndam la du xàmme mattuk rat ak gu daqaar gu salaan ak gu leneen tey mm. foofu rek. mais nag bu bët setee nag am nga am nga nga yaatu yaatu tànn nag xool matt yi la amal njëriñ nga tànn ko génnee yi ci des nga sànni ko kii saa ko xam-xam am na sañ-sañu lool. waaye nag teewul nag boo dee sàkku xam-xam itam maanaam toxalee ko jëlee ko ci koo xam ne xam-xamam wér na ci ko am cër ci yàlla loolu dafa gën a dal xel dafa gën a wóor. Mm-hmm. xam-xam du du fu ne lañ koy rootee donc loolu dañ ci mat na mat naa bàyyi xel. Mm-hmm. ndax léegi léeg nga gis ku toxal ab secret di ci def te du sotti benn yoon fekk fa mu ko toxalee mën naa moo wérul. Mm-hmm. même ci téere yi rek bu ma juumul euh, mën naa ko génne. téere bi boroom xam-xam yu bari miin nañ ko iqaasatil masloomi iqaasatul masloomi Abdul Fattah Atuuxi moo ko bind téere la bu doy waar ci wàllu rawxaan yi li ci nekk ci ay secret kenn xamul nu mu toll ak ci wàllu rawxaan waaw ci wàllu rawxaan ci def ak dindi donc ci wàllu jat lépp rek ci tàggat jinneeg ci jëfloo kook ci yónni ko ci tàggat rawxaan am li ñu tuddee irsaalul xaatif par exemple am ku ma bëgg tiital ngir mu fay ma bor bu mu yore damay bàyyi ba nga xam ne wóor dama ne waxtu war naa nelaw am na lu may liggéey léegi dama koy transférer sama sama sama kàddu ak sama melo mais nag ñi muy gis day mel ni man lay gis te ñooñu dañu yore mbor mbold yoo xam ne muyurul koo gis tiim ko di ko duma duma yu métti mu koy mu koy yëg ba ba du mën a nelaw day jóg bu xëyee fu mu mën di jëlee xaalis bi dina ko jëli indil ma ko téere la bu doy waaye teewul gis nga ko xam nga téere léegi lu ñuy mool la teewul dama koy liir di ci gis ay yàq dinaa xam ne lii ni am na ay yàq mm-hmm. léegi loolu bu fekkee jàngoo xam-xam nga jënd téere bi gis nañ ko bindee rek ngay fajal nit aaju bind ko noonu jox ko mu dem sangu wala takk wala ndàngam du jariñ parce que am na yàq bu ci nekk boo xam ne yow xamoo ko mën na dellu ci faute grammaire mën na dellu ci ndax gis naa ci rek aaya alxuraan buñ ci bind boo xam ne mool bi dafa am lu mu tëj tëb ci aaya bu fekkee ne yow mokku la alxuraan nga bëgg bind aaya bi xam naa maa ngi xaabaabal mais dafay amal njëriñ comme comme ñu bari dañuy seetaan mm-hmm. te ñu bari ñi ñuy seetaan dañuy jàngaale ci ñun ci mm-hmm. xam-xam wàllu xam-xam mm-hmm. fii nit na ma fi ku nekk bitim réew ci tegtal bu ma joxe woon ci sóoratu yaasin mu def ko gis résultant yi ak yu dul jeex yu dul jeex waaw woo ma bëgg lool daal di may dugalal addiya ju bari donc moo tax may wax rek ne nañu def attention ci yi ñu yi ñuy toxal di xam fu ñu koy jëlee itam loolu daf daf ci am solo bu dul loolu jumte dina am dégg kon li ma bëgg a wax rek moom mooy nopp moom li ñu ci am ci ay yoon moo xam ci yoonu xaatim la muy lu ñu jàng moo xam lu toxalee ci ay kilifa la yoon yu wóor la yoo xam ne bu ci mën di doon rek doy na sëkk ci régler aajo yooyu ci wàllu ci wàllu diggante góor ak jigéen moo tax sax ñaare képp ku na ma damaa bëggoon nopp li ma lay njëkk posé comme question mooy ndax sa soxna la. kan ngay nopp kan ndax sa soxna la ndax bëgguñ koo defal ku ñëw rek ñi defal la nga dem tàggatal nit nit ba fu mu toog di la xalaat. ba loo ko wax mu def ko du ko sañ a bañ loolu itam boo ko dee def nag yow mi koy def war nga ko xoolaat bu baax. waaye sëñ bi noob dina jàpp bàyyi dina jàpp xam nga noob yi koy def nag. Hmm. surtout mooy li mu doon tudd ci sulmaan yi. am naa noogu noobu sunguf boo xam ne man mii maanaam kaa irsaala maanaam bu bu boo ko defoon ba noppi maanaam jigéen ji mu sëy ak borom këram wala borom kër bi sëy ak soxnaam moom mi ko def sëy ak ki ñu koy noobloo maanaam ci saasi bu bu ñu sëy ba noppi nopp bi day jàpp mais nag du diire diire bu yàgg bu demee 6 mois 7 mois mën na jeex dégg nga. Mm. loolu day dellu waaye sulmaan yu lay doon nag. lu mm. doon xam-xam yu kii mais bu dee xam-xam nooraan yu maanaam noob ñi ciy defar. maanaam maara day taari buñ ko xasee def waaw fas gi waaw fas gi ay jat la yu wóor wóor yoo xam ne fukki fas pas-pas lay doon ak ñaar yoo xam ne bu ñu ko defee ba pas ko ba noppi ba jox la ko nga jëfandikoo ko ni ñu la ko waxee ala kulli xaalin mm. wala ñu def defal la ko à ta place ndax lu mën a nekk la mm. su ko defee moom ala kulli xaalin amul kenn ku ci mën a muñeti sa morom ci ñaar mais ci wàllu mbëggee lay dox. ci wàllu wàllu aajo. rek lay doon. normalement sunu patron. ah de loolu du nopp boobaa. loolu mooy noot. waa noot la tudd waaw. su boobaa mm. itam am na weneen yoon. kànnaar bi ma daan wane daan nañ ko ci jaare mu mm, ëpp lañ koy li ci ëpp moom foofu lañ koy jaaree donte kànnaar gi itam dañ ciy jëfandikoo wàllu noob mm. waaye pas-pas bii moom ci wàllu sentiment lay dox dégg moom mook alway xànjar cee benn lañ ak nen beli nen nen bi nga xam dama koy fett ma jëlee daggee kayit bi ba noppi am na turu yàlla yi may bind mais damay ubbi turu yàlla yi am na yëpp am miim yi ma ciy hmm. dugal seen miim yi lay ubbi dugal leen ci ñoom ci biir ma pare tëj turu yàlla yi. Hmm. fett nen bi lemteri bi ba mu sew ma dugal ko ci. Hmm. dégg nga jël lu mel ni kol kole ko ba nga xam ne tey boo bu boo ko joxoon nit mu ko yóbbu ci géej gi bu daanoo ci yoon bu mën naa bañ a toj. ndax kol bi nga ko wëralee ba mu ba mu ba mu xaw a tal mais bu ko sànnee ci géej gi géej la feeg mu ngi def nii. ñoom ñaar xelam di dog ci moom te géej nag wàgg yi du dañ di def nii donc kon lii fukki pas-pas ak ñaar yi li ci ëpp nag fi mu koy jëfandikoo surtout mooy ki nga xam ne pas-pasam du du du lislaam su boobaa nag ëpp li mu koy jëfandikoo ay pas-pas lay doon yoo xam ne ay jat la jat yoo xam ne ku ne mën na koo mën kuñ ko jàngal ku ne rek boo ko defee mu jàll ala kulli xaali bu ci yàlla àndee. Mhm. kon nopp lu wér la lu am la. Mhm. lu ñu mën a layal la. Mhm. sëñ bi yii ay jaaru la jaar jaaru ne naa man ci yow laa ko xam. ci diggante Souleymane ak jën wa. waaye ñetti jaaru la yoo xam ni. per yi dafa wuutee wala sax mën nañu ñaar parce ñaari ñu la benn bu xonq. est-ce que ñoom ñëpp ñoo bokk. ci li ñu dox. déedéet bokkuñu nag waaw. bu dee bu bu ma njëkkee bu bu bu bu bu maroon bi. Mhm. pii moom kaaraange rek moo ko tax a jóg. loolu la rek te nit ñi soxla nañ ko nag ci jamono yi. Mhm. jamono bu sax nekk la ko nit yittewoo surtout ndaw mhm. ndaw moom damay wax ne kaaraange gën a soxla koy am-am. waxin la nag déggin la laaj maanaam ni muy soxlaa lu mu parce que bu amul du tabax àddinaam te lu bari ci ndaw la ko nit mën a defee yàlla rus na bàyyi ba nga doon mag mu lay jox di la dabu fi ngay doonee mag ci ngay samp kër ci ngay am soxna ci ngay am njaboot kon foofu ku nekk xam na ne lu lay may loolu baax na mm. waaye nag boo aaruwul doo fekkee njëriñ li te wala fi nee nañ njëriñ loo fekkee te loolu effectivement mooy dëgg la donc loolu lu dëgg la ndax loo yore rek am na ko ko soxla wala mu gën lu ko bëgg mm. te boo yaafusee mën na ko jël ci yow ak ak ak ak bu mu mën utiliser pour jël ko nag. Mm. moo xam da lay yóbbu ci benn sëriñ bu ragal yàlla mu yàq la yàq la ba ba doo sa xel dootu nekk di dem xëy liggéey wala sa alal ji seey wala mu nga xëy di dawal sa oto accidenté say cër mm. yàqu wala nga dee. donc loolu day am day am am na nañu yàlla bindee noo xam ne kii sama nawle la ñoo bokkoon di jàng wala ñoo bokkoon di def nangam gis naa ne mu ngi jël yoonu tekki ma mën a def pour yàqal ko dinaa ko def. waaw am na koo xam ne nag moom loolu mënu ko gëm. ndax comme moom xelam du daj loolu waaye lu am la nit ki na ko bàyyi xel maanaam bu mu am nayif nayif bu toll nii rek defe na kenn amul ci moom soxla loolu ëpp naa def kon nit ñi dañu war a am kaaraange yàlla nag yonent yi nga xam ne moo leen yónni la garanti seen kaaraange ku dul ku dul yonent yàlla garantiwul sa kaaraange. Hmm. nañ ci bàyyi xel bu baax. kon ki naan man daal bàyyi naa yàlla ak sama bopp. yonent rek moo nekk maasum yàlla moo koy yónni jox ko mission moo tax yàlla da koy da koy protéger bu baax. Hmm. teewul sax yenn ci ay yonantu yàlla nattu na leen waaye loolu ay nattu la seetaan leen ñii ñi rey leen ñii ñi teg leen yenn kii waaye yàlla da leen xam nga bu yàlla ne yonantu bi wallaahu yaxsimuka minan naas yàlla moo lay aar ci ay nit ñi ci musibay nit ñi moo tax fu nit jógee di def lu bon yonantu bi loolu day yàqu. ba sax biñ ko tooke tookee aw ñam di ko ko jox ñam wi moo wax ak moom ne ko bul ma lekk dañ maa tooke. kon nga gis na walaa yox si mba ko mi ne naa si ñëwaat na dégg nga loolu nag keneen amul ko yonent yi ñoo ko am nañ ci bàyyi xel kon nit ñi nañu wut kaaraange surtout jamono ji nga xam ne ñu bëri am nañ tiitaange ci réew mi gis nañu liñ liy xew accident yu bari donc voilà su ko defee nag ku ci jogul sa sa sa bopp te yàgg naa koo wax su boobaa ngelaw liy ñëw du la fi bàyyi maanaam day taari lu tee nag kilifa yi ñu ngi ñaan na ñëpp ñaan rek waaye ku nekk itam nga commencé ko ci sa bopp fagaru ndax dafa am loo xam ne mooy waru garu nit ki buur mooy li ñu tuddee sabab mm-hmm. hmm? yàlla dafa ne man maa wàccee sabab bi kon jaar leen ci sabab bi ki xiif xam na ne sababu lii dindi lorom googu mooy mu lekk mm-hmm. ki maar sababu liy dindi koogu mooy mu naan ki feebar faju donc loolu la loolu mooy sabab bi yàlla moo ci wax ni nañ ci jaar buñ ci jaaru yàlla day toog li leen seetaan rek parce que fii moom li fi xew yàlla du ko àtte ëllëg la yàlla di àtte mm-hmm. mbëkkanti yeeg agression yeeg sàcc beeg yooyu yëpp xikma bi bi ci yàlla tëral mooy dafay seetaan parce que tey du këru këru nuñ ko tuddee àtte ëllëg la yàlla di àtte mm. sol mun mbubu mun taqim bu ko defee nag fayantoo di am waaye fii moom ku jógul ci sa bopp moo xam ci kaaraange da wala ci wërsëg doo ko fekke kon jaaru bii li ma bëgg wax rek mooy donte li ma ci yaatal bari na doy na sëkk sëkk sëkk sëkk ci kaaraange ku ko am daal moom foo dem daa dellu si ci jàmm mm. dégg nga ay lakk ay dee dee ci biteeg yooyu yëpp nga xam ne dee yu ñaaw lay doon du la dal moom ci kàttan borom donc voilà donc ah, waaw ah, yàlla seetaanu ko yàlla mi yàlla mi seetaan yonent bi nga xam ne yonent bi nee na Xasan ak Xuseynu boo ëllëgee ñooy doon sangu waxambaane waa aljina mm. nga xam ne amoon na problème ci bis bu ko Xuseynu ak Xasan waxaan ñu ñaar kañ nga ci gën a bëgg mu daal di gàtt. Mm. te dale naa bëggoon bëgg bëgg bëgg ba yonent bi taxaw na di di xutba ci kaw minbar bi. bu dul Ousseynou di Assane kenn ci ñoom ñaar di ñëw di waaj a daanu ndax mbub mu ko lonk yonent bi wàcc min bat bi daw dajeeg moom donc gis nga cofeel googu yàlla seetaan fi ñu leen jaarale seetal fi ñu leen jaarale seetal loolu ah, léegi nag yow mm-hmm. yow yow yaa jàpp ne yàlla yow la gën a yow la gën a bëgg ci xasan sa gis sa gisin boo ko jàppee it sañ nga ko déedéet waaw léegi nag kon yàlla bu fekkee seetaan la le boo ne du seetaan leneen te xamoo li xew da ngay aar sa bopp donc loolu day farata mm. nit dajale na fi alal bu bari banque yi ñu dajee kër yi ñu dajee nangam nangam boo aarul sa bopp loolu day am na kër yoo xam ne kenn du fa dugg parce que nit ki def na ci kër gi loo xam ne maanaam kii wër di def loolu xelam daj dugg ci kër gi mag ngi ne daan nañu aar kër ba aarub dëkk aarub dëkk aarub dëkk la aarub jur ga aar seeni loolu la xam nga xam nga nga di yeewi xar mi jaan màtt la. Mhm. wallaahi. c'est loolu mooy ah waaw waaw. donc loolu il faut mu am kaaraange. beneen bu dee bii ci wàllu ubbeeku lay dox ak ba ak bayre bayre it ndaw da koy soxla. Mhm. waaw ndaw laa wax na ndaw day soxla bayre ndax bari na lu nit di di di ñàkk ñàkk bayre moo ko ko xeeñ. Mhm. faxe ba saf nit ñi daal waaw saf nit ñi dafa am solo kon bayre gi. ak ubbeeku gi ak kaaraange gi moom dafa boole ñett yëpp bu dee bu dee bii ma njëkkew ne moom kaaraange rek la mais bu dee bii dafa boole ñett yi wax naa ne dama koy répété maanaam boo ko takkee semaine boobu yow boo boo boo boo amul boo amul it mi naanul xal bi xool bu dal maanaam da nga am lu defee ne li des ci sa wërsëg la yàlla di taxañ pour di la ko jox ndax euh, wërsëg ni mu lay ñëwele dina la jaaxal mm. lool lool lool mm. donc kon bu dee ci wàllu wërsëg noonu bu dee ci wàllu bayre itam di nga saf nit ñi lool di nga gis daal nit ñi nuñ la juboo ak niñ la joxee paal ndax am na ñoo xam ne léeg-léeg nit jàmbat la ko nekk ci barab kenn du ko safoo kenn du ko lijjanti. donc waaw loolu day am. Mm. dégg loolu mën naa nekk naturellement noonu noonu nga mel. dégg nga loolu day am. Mm. am na am na it mën naa nekk defin maanaam ñu fexe ba dëddale la ak nit ñi. Mm. dëddale la ak sa patron dëddale la ak sa soxna dëddale la ak dëddale la ak parce que loo jàpp ne nit du ko def itam nit dina ko def donc yooyu yëpp nañ ci bàyyi xel kon bayra bi am na ci solo moom itam. Mm, donc kaaraange it doo doo di ñëw moom itam. Mm-hmm. bu dee bii nag moom pour jigéen ñi la jigéen ñi ñoom dañuy am ci jaaro yi. jigéen ñi nag fi ñu koy gën a soxlaayo mooy ñi nga xam ne dañuy jël grossesse muy yàqu. dégg nga xam ne rab daal rab. wàllu rab rek ci la rab rab rab lay jaawaale rek ko wàll bii moom rab ci lay dimbale bu baax de jigéen ñi koy takk. donc moom day leen di amal solo lool ñuy ëmb muy avorté te di ko waral lépp. Mm-hmm. da leen di dimbale bu baax ndax rab moom bëri na lu muy yàq. loo xam ne xëy na mën na am ni ñu ko daan defee daañ ci indi yeneen émission ci ni muy yàqale doomu aadama. Mm-hmm. ba sax day liggéey ci xelu nit ki donc yooyu yëpp day am. donc nañu ci bàyyi xel waaye jigéen ñi moom bii daal na leen amal njëriñ lool bu soobee yàlla waaw. bii daf ne amal njëriñ. bu soobee yàlla mooy. li ma leen waxoon sànq Serigne Fall Dramé. lépp lu muy jëflante ak doomu aadama ci ñaan yàlla mën na ko indi dali. dal gi mooy support wax ji ba nit ki xam ne lii mu jëflante ak lu yàlla gërëm la lu yonent bi saa salaam gërëm la. Hmm. sëñ Ba kii moom mujj man ko mujjee gis ca jàmm gën. Hmm. waaw. waa li tax loolu nag mooy waaw li tax mooy <laughs> li tax mooy dafa jafee am jafee liggéey mhm. moo tax bu jeexee rek pour ma amaat ko day day jafee mhm. ndax faaw ma obligé dem ba Saalum foofu laa mën a amee garab mhm. te garab gi itam da am période boo ko mën a am te du garab goo xam ne mën nga cee am lu bare te wutim dafa xaw a metti léegi nag buñ ko amee ba noppi comme ni ma ko waxee woon léegi dañuy jël euh, garab bi buñ ko weeree ba mu kii ñu def ko sunguf waxoon naa la aaye boobu muy wajaxatloo maa leen mam doodan nga xam ne dafa am li koy liggéey lu toll juróom ñaar fukki yoon nga xam ne moom lañ koy bind bu ko defee saafara soosu nag lañu jël gaasee ko sunguf si sungufu garab boobu suñ ko ko gaasee ba noppi weeraat ko ba mu wow mm-hmm. léegi ñu kiyaat leen dëbbaat leen ba mu ba mu ba mu ànd jaxasoo léegi boobaa nag dafa am beneen cuuraay boo xam ne yëpp moom lañ ci boole gis nga kon garab boobu de ciy dugg cuuraay bi muy àndal ak aaya boobu te muy wajaan lu maana mam doodan nga xam ne ci alal rek lay dox muy nekk sunku bu doy doy waar ci wàllu ubbeeku buur mm. donc doy waar lool lool maanaam jamono bi nga koy jëfandikoo moom sax dina la yomb lool te te lépp looy xëccoo wala looy seenu daa ci jot moom bu fekkoon sa yaakaar day tas nit di la dig du loo ko jox wala yu mel noonu wala ngay lijjanti muy dëgër yooyu moom jeex na mm. ñu bàyyi ci xel nag ne lenn mooy jafe-jafe bi mooy bu jeexee da koy wutaat de. waaw man kay ah, donc li ne donc jeex na waaw waaye ah, <laughs> waaye sunguf bu doy waar boo xam ne moom képp koo xam ne am nga ko moom wàllu wërsëg doy na doy na li ci sëkk te li nga ciy jëfandiku du bari tuuti rek lay doon par tuuti ngay jël ba tuuti nga xam ne boo ko amee day mën a yàgg ak yow lool donc voilà sunguf bu doy waar la moom ubbeeku rek ci wàllu xaalis rek rek moo ko tax a jóg moom amul leneen voilà <laughs> ubbeeku ci wàllu xaalis rek macha allah mu ngi noonu suñu wàllu looy tàggoo mm-hmm. tey moom xaabal nañu waaye jotaay moo ko laaj dëgg la waaw xam nga des fois mm-hmm. euh, waxtaan yu mel dafay am solo mm-hmm. surtout boo jàkkaarloog borom xam-xam lu la lënt laajal ndax bu leeree rek dana la jëriñ jëriñ doomu aadama waaw xam naa ñu ngi dellu xam naa bokk na ci li ma waroon a ubbiwaat sax. Mhm. di yeesalaat sunuy njaal rek. ci accident bi mujj am. ay ay ay ñaari accident yu waaw bi amoon kafrin ak bi amee yoonu mhm. fee. Mhm, yoonu sàkkal ma bi donc ñu ngi ñu ngi ñu ngi jaale Sénégal yëpp di ko di ñaan yàlla itam di leen jaale seen famille ndax ñëpp ñàkk waaye ñoom ñoo ci gën a méttale di ñaan yàlla mu may leen xolub muñ dégg nga ñi nga xam ne ñooy woy dawle itam yàlla. jéggal leen seeni rëcc-rëcc te xaare leen aljana di ñaan yàlla mu sotti jàmm mu sotti dal ci réew mi waaye itam defal ko waa bitim réew incha allah ñu ngi leen sant baax di leen gërëm salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.